يصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالضيف العزيز السيد الأستاذ سليل دوحة النبوي الشريف sayid abdul aziz al amhaari wa dayf al muraafiq lahu li shaxsiyatihi sayid haytham min lubnaan wa axuuna al kabir alxaaj malik fall axuuna wa ibnu amina min piir wa muriduna wa ibnu bintina al ustaaz muxtaar njaay marhaban bikum bismi tuuba machixatan wa ahbaaban wa atbaan marhaban bikum bismi tariqa almuridiya alsuufiya sunniya lati assasaha maulana abdullahi wa xadimi rasulihi alcheikh ahmadou bamba xaadimu rasul xaadimu jaddikum fa bismi cheikh ay alxalifa al aam cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Ahmadou Bamba alxalifa alaam li tariqa almuridiya allazi aataana awaamir wa taalimaat saamiya ana wa majmuca min ahli Tuuba fi muqaddimatihim daairatu rawdi rayaaxiin الهيئة العليا المكلفة بالشؤون العلمية والثقافية هنا في الطريقة المولدية مؤسسة دائرة حزب الترقية العلمية الثقافية واللجنة إن شاء الله تعالى سيتولون ضيافتكم إن شاء الله تعالى سوف تتعرف عليهم أكثر عما قريب دائرة مقدمة الخدمة هذه الهيئة العليا التابعة للخلاف العام والتي تتولى كثيرا من القطاعات الإسلامية هنا في طوبى مثل إدارة المسجد الجامع إدارة المقابر إدارة كثير من تسيير شؤون هذا البلد وبعض من ممثلي بلدية مدينة طوبى المحروسة هذه البلدية الخاصة والتي لها طابع خاص كما في علمكم أن مدينة طوبى هي المدينة الوحيدة يسكنها ما يزيد على مليون شخص ولا يدخلها الخمور ولا التدخين ولا من يدخن وغير وغير وكل المظاهر التي تخالف الشريعة الإسلامية ممنوعة في هذا في هذه المدينة المباركة منعا باتا ومن يرتكبها يعرض نفسه بالقانون بموافقة من الحكومة السنغالية إذا هذه مدينة إن شاء الله تعالى سوف تعرفها أكثر بعد زيارتكم هذه الميمونة فباسم هذه مجموعات التي ذكرت لك نيابة عن الخليفة العام وباسم كافة أهل الطريقة المريدية نرحب بكم في مدينتكم بهذه الزيارة الميمونة لأول مرة تزورون مدينة طوبى وضيفنا العزيز غني عن التعريف أحد علماء العالم الإسلامي وأحد المفكرين وأحد دعاة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وأحد أهل, أهل الذكر أحد القوم أحد, أحد رجال التصوف المحاضر السيد عبد العزيز الأمغالي سليل الضوحة الشريفة أي حفيد بيت النبوي الشريف فمرحبا به fi Touba bi ka fa marhaban fa kama qila qadiman fa marhaban qawha fi lafzi mutaxidun lakinahu bi ixtilaafi naasi taxtalifu ñoo ngi nuyu bu baax sunu gan teel gii fi ñëw di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu defe naa day sëkk nit ki ne di ko misaal loolu gën a kawe lépp ku bokk ci néegu yonent bi sallallahu alayhi wa di borom xam daara bu siiw ci àdduna ñu koy wax al ustaas Abdul Aziz Al ci réewu Maroc di ko mën a tasaare lislaam di ko yaatal am njàng ak di ko tasaare di def ay conférence yu bari ci àdduna si surtout ci wàllu tasawuf euh, di ko am solo moo fi ñëw tey ànd ak ganam gu tedd gi mu àndal xaysam yi jóge ba Liban suñuy mbokk gunge ko su sunu mag Alaaji Maalik Maodo Fall sëtu Xaali Amar Fall fii la dëkk dëkk bi defe naa moom sa sëtu Xaali Amar Fall jóge ba Pire gunge ko sëriñ Maxtaar Njaay bi ñu ko tey suñu doom nekk proposé ca IFAN ba tey ànd ak moom nekkoon interlocuteur am nga xam ne ziyaare bi ginnaaw yàlla ci moom la a yàlla jaarale moo ko wax sëñ bi ba sëñ bi rafetlu ko ñooñu la àndal gi seet ci dëkk bi mi ngi fi doog a ñëw nag ci Touba waaye loolu kon di lu am solo comme lañ ñu ko wax léegi rek bi ñu koy dalal ne ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne mooy sunu sëriñ mooy borom dëkk bi mooy kilifa ak di yi fu ñu mën a nekk moo bi mu yëgee ne yaa ngi fi bëgg ñëw da koo neex lool ku ne xam na ne sëriñ bi jamono yi dafa génn dafa jàpp waaye nag Touba moom mi ngi fi waxtu nekk moo tax mu jox ndigal ñi ko nekkal Touba ñëpp ne nañ ko ku gàttandul te tàttagal ko ko daayira Rawdu Rayaahiin ñi nga xam ne ñoom sëñ bi xam-xam ci dëkk bi ñu ngi teew suñu maanaam moo rusu ne teewal leen fi euh, daaira Hizbu Tarqiyyah bi nga xamante ni ci mënees na ne ci ñi gën a dëgër ci ñi jàppale xalifa ci lañ bokk comme li wax ci ñi ngi teew euh, sëñ Aatu jiite ko sëñ Aatu xam ngeen ne nee naa leen ñooñu ñoom la sëñ bi jox ndigal ne ñoo koy war a dalal kon bu fa dana fa dem euh, nit ki noonu ba tey daayiratu Muqaddamatul Xidma bi ñi nga xam ne ñoom tam ñu am solo lañ ci ñi jàppale seeñ bi ndax ñi ñëw leen limal ñëpp ab xaaj lañ ci xilaafa gi ku ci nekk xilaafa bi xilaafa gi leen liggéeyloo mooy ku mu joxe ay ndigal nga mooy ñooñu kii officiel ñoom moom lañ fii ci yoon murit ndax ñu ci nekk ci ay ndigal yi ñu jël ci xilaafa gi ñoom mu xadamatul xidma boobu xam ngeen ko li ñu wax ci raw daraaxi la ñu wax ci ñoom diine ji mënees na ne ñoom itam ci wàllu topp toog organisation la ci ñoo ko yor bu ngeen ko seetloo wàllu màggal gi gis ngeen leen ci gàmmu gi gis ngeen leen jumaa ji nga xam ne mooy chemb bu gën a mag seen loxo nga xam ne fa di mujj yàlla na yeex loolu ca nekk lu baax lañ faa dem seen topp topp dëkk bi ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñu seen jox ko ko ñoom ñëpp nag feggoo ak nga xam ne moo fa fi teew xam ngeen ne membre la bokk ci maire Touba sëñ Abdoulaye Ka jiite ko nekk fa conseiller nekk fa ko jege ñoom la sëñ yabal ñëw gàttandul ko ko dalal ko jàmm incha allah taala te sëñ bi bëgg lool ci ñëw gi ndax mi ngi ta mi ngi doog a ñëw moo tax mi ngi ñaan rek ñëw gi yàlla nekk loo xam ne dana nekk li mu fi li mu seetlu lépp yàlla na ci gis loo xamante ne bu ko raw la jërëjëf ñu ngi dukkal ma xas rek incha allah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain awalan shukru lakum lixusni istidaafatikum wa tarxiibikum wa xaraarati liqaa'ikum wa likul ixwaan walmashaayix walaxbaab mawjuudun fi haaza almakaan walladiina sanaraahum min bacd inshaa allah لا لا أحس نفسي في في بلد ثاني لكني أحس نفسي في وطني وطني الأول وأصلي الأول وهو مجمع نور الله الموجود في قلوب كل من يبحث عن الله وكل من يذكر الله أتيناكم من من بلاد المغرب وأخي الشيخ هيثم أخي الشيخ مالك وحبيبنا الحاج مختار لزيارتكم وللتبرك منكم وقت الإقامة قصير عندكم لهذا لن سأذهب إلى اللب مباشرة ما أتى بي إليكم إلا يقيني مشاهدة أن الطريق إلى الله واحد كلها أسماء لكن الأصل والطريق واحد تختلف الألوان وتختلف الأشكال لكن الحقيقة واحدة هذا أصفر وهذا أزرق هذا له شكل وهذا له شكل هذا له منظر وهذا له منظر لكن الهدف والحقيقة واحدة العمل واحد فهذا اليقين بأن نور الله واحد هو الذي أتى بي إليكم لما سألني الأخ قال لي أي طريقة أنا لم لم أجامله لما قلت له لا أدري لأنه ليس ليست مجاملة ولكنها حقيقة الله يشهد أنني لا أدري لا أدري لأن كيف يحس الإنسان والمريد بلونه وشكله وحجمه وهو في حضرة الله إنما نظره لنفسه ولطريقته يدل على غفلته عن الله fa xadratu llahi tuxafiluna an kulli shay illa hu هذا نشكركم كثير الشكر وأسأل الله أن تكون زيارة نستفيد فيها منكم ومن مدينتكم ومن علمكم ومن تجربتكم في الدعوة إلى الله ونشر كلمة الله وتوحيد كلمة المسلمين وهدم كل ما يمكن أن يفرق ويبعد المسلمين بعضهم عن بعض كيفما كانت طريقتهم أو فكرهم لكن هذا الإسلام أتى ليوحد لا ليفرق فإن افترقنا وتفرقنا باسمه فنكون أجهل الجهال به فإذا الله سبحانه وتعالى أمر الخلق كيفما كان دينهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذا إذا القبائل والديانات كيفما كانت جعلت لتتآلف بينها وتتآنس فكيف بالمسلمين بعضهم مع بعض فالله يبعدنا عن النظر لغيره ولا الانشغال بغيره ولا التفريق بين المسلمين باسم دينه wa jazakumullahu xayran de français. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie pour votre accueil, votre chaleureux accueil. Et, et ce n'est pas une, du formalisme ou bien du protocole, mais je me sens vraiment chez moi. Et en me sentant vraiment chez moi, je vais parler comme chez moi et sans façon, comme on dit. Vous avez été très chaleureux, très accueillants avec moi. Je vous remercie. Et la gentillesse et la douceur de, de, de dans ce voyage. Je demande Allah subhanahu que cette réunion soit une réunion pour lui, rien que pour lui. Et ce qui m'a ramené chez vous, c'est ma conviction. Et ce n'est pas une conviction théorique, c'est une conviction visuelle. Que le chemin pour Allah est un. Et on n'arrête pas de répéter dans nos prières Ihdina Sirat al-Mustaqim. Et Sirat, ça veut dire un. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Les couleurs peuvent différer, les gens peuvent différer, mais la réalité est unique. Allah. Et comme je vous l'avais en arabe, c'est comme ces deux micros qui ont des apparences différentes, des, des couleurs différentes, mais qui ont un seul but, une seule mission, c'est enregistrer. Il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre plus beau que l'autre. Si on s'attache aux apparences, on regarde les apparences et on s'attache à ce qu'on est devant Allah, c'est qu'on se regarde devant Allah. Il n'y a pas plus éloignant d'Allah que de se sentir ou se regarder soi-même devant Allah. Avec Allah, il n'y a qu'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette visite, nous fasse connaître l'école de ce grand cheikh, Sidi Ahmed Bamba, Khadim al-Rasoul, qui est un, un maître unique, comme le sont beaucoup de maîtres de notre islam. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, de temps en temps, ou tout le temps, il, il envoie des hommes comme ça pour euh, redonner souffle à cet islam et pour renouveler cet islam et pour renouveler la lumière d'Allah dans le cœur des hommes. Je vous remercie. Jazakumullahu khairan. Wa salam alaykum wa rahmatullah. les motivations, c'est comme je vous dit, c'est voir, ce qui se cache derrière les couleurs. Je veux, confirmer ce que j'ai dans mon cœur. Sayyidina Ibrahim il a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherchait Allah. Et il sentait cette grande dans son cœur. Et il, voulait, la chercher. Il dit ce que je ressens dans mon cœur et cette grandeur et cette lumière et cette présence de la divinité dans mon cœur, peut-être que c'est la lune. Tiens, peut-être ce que je ressens dans mon cœur, c'est ça. Et puis quand la lune a disparu, il a dit non, c'est pas ça. La lumière que dans, mon cœur ne s'absente jamais, est toujours là. Puis il a vu le soleil, il a dit ça, c'est le plus grand. Je vais peut-être apprécier ça, mais quand il a le soleil disparu, il Et en fin de compte, il a dit, Allah, si tu me guides pas toi, je serai éternellement perdu. Donc, je viens pour voir ce qu'il y a derrière la couleur, cette vérité que je trouve partout. Parce que la seule vérité, qui existe dans tous les torques, et c'est elle qui guide les torques et les gens des torques, la seule vérité c'est Nour Sayyidina Muhammad, la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il y a autour, c'est qu'un décor, une façade. La vérité est une. Nour Sayyidina Muhammad. Il n'y a pas de guidance de cœur vers Allah sans cette lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs couleurs. Et je viens voir ce qu'il y a derrière les couleurs. Et je trouve toujours cette lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et c'est ce qui fait l'unicité de tous les a combien de toroks Une. Nour Rasulillah. Sayyidina Chidi Cheikh Ahmed Bamba, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié d'un grand nom. Il n'a pas dit Khadim Tariq, ou Khadim Tariq al-Mouridiyya, Khadim al-Rasoul. ça veut dire a enlevé tous les obstacles et tout ce qui cette vérité, il s'est retrouvé avec la vérité unique et seule, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on l'appelle Khadimur Rasoul. <laughs> C'est une question et c'est un projet qui peut aboutir difficilement. Et ce, qui peut se mettre au travers de cet objectif qui est grand, c'est l'unicité des musulmans et de la voie de l'islam, c'est l'ego, an-nafs. Chacun d'entre nous croit qu'il est dans la vérité. chacun d'entre nous. Je, parle de mon expérience personnelle. Par exemple, chez nous au Maroc, même entre nous, dans, dans toroq, ça c'est soi les, sophies, entre guillemets. Et mon cher, c'est Et les autres, leur dhikr n'est pas bon. Entre les, sophies. Mais c'est d'une gravité extrême. qu'on nefes et l'ego commencent à monter sur les valeurs de sophisme pour éparpiller les musulmans. Tout ce qui peut arrêter cet objectif qui est grand l'unicité des musulmans, c'est l'ego. Et pour faire face à cet obstacle, il y a deux moyens. Il faut lever le débat, en attachant le cœur des gens à Allah, en arrêtant de parler de, de Allah avant de parler d'Allah. Il faut faire les choses dans l'ordre. Quand on rentre dans la législation, avant de parler d'Allah et de faire connaître Allah, on est confronté à l'obstacle de l'ego, de la nefs. pour ça que tout les, toutes les recommandations de l'islam dans le Coran, quand on veut interdire le halal ou le haram, ça commence par Ya ayyuhalladhina amanu. Il à la législation. Et le second obstacle, il faut unifier le langage de l'islam. Il y a des termes que avec l'arrivée de, mouvements qui sont un peu radicalisés et qui, utilisent l'ignorance des gens pour leur dire, par exemple, que tasawwuf, c'est un terme qui n'existe pas, c'est une bid'a, n'a jamais existé. Pourquoi vous parlez de tasawwuf Et ça, ça montre l'ignorance. Mais on doit s'adapter avec l'ignorance. En revenant au terme de l'islam, si le tasawuf gêne, la tazkiya gêne, التزكية ne gêne pas. والذي بعث في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم التزكية ça te gêne tasawuf on dit pas tasawuf on dit التزكية la purification ça te dérange pas parce que c'est dans le Coran dhikr tariq tous les termes et les choses on doit revenir au terme de, du Coran, parce que tout existe dans le Coran et dans le Sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, on arrête, on arrête la poussée des gens qui profitent de l'alliance des musulmans pour séparer les musulmans et éloigner les musulmans des uns des autres. Inch'Allah, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Inch'Allah.